salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxal seen wàccuwaay bu wér du nuyu kullum kuy safoo SBT rek nuyu naa la bu baax a baax ziar la joxal sa wàccuwaay bu wér di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ñaan la way daw lii suñu borom yërëm leen xale si àjjana fiir daw si ñu feebar tëdd si hôpital yi si kër yéen suñu borom fëgg seen bopp daw si nañu caabi féetee ginnaaw yéen suñu borom may leen liberté ndax liberté dara da dàq ko tey seen émission seet si mbër ñu seet si xale seet si ndaanaan seet si yaakaar ñu fekk ko fan fii Kër Massar 54 ñu nuyu ko boo loolu nuyu naa waaw ñu ngi lay fay grand Idi waaw ginnaaw ba ma sant yàlla di julli ci bi di sant samay ñaari waajur di bëggee waa école bi yëpp di nuyu sama waa koñ tamit waaw di bëggee tamit père yu Seck ñu bàyyi monsieur maire nekk sama koñ ñëpp maa leen di siyaar bu baax a baax a baax a baax si. Boy Lo dama ko dugal si làmb la am mag juy bëre wala papa juy bëre wala màgg bëre la. sama nijaay man laa doon ci làmb ji. sama nijaay Abdou. sama nijaay Abdou moom jamono ñoom bombardier waaw daan na bëri moom. bëri na arène. non mosut bëri arène moom ci àll bi la nekkoon mais bëri dóoru àll bi la doon bëri moom waaw. fan la njëkk a takkee ngemb. Lo daara ji laa njëkk a takkee ngemb daara ji ba ma nekkee daara ceen bu sir jaaw laa njëkk a takk ngemb njëkk a bëri bébé ama ndoxat bébé ama i ama bal la nekkoon mais kooku ñoo bokkoon yooyu nga xam lay fay 1000 francs nga ñëw bëre ci mbapat gi yooyu gars yi teg drapeau gi yooyu noonu waaw ñu bëree si mu daan ma ba mu nekk sama premier combat bu ma njëkk a bëree. premier combat ba pare nga daanu si. waaw. daj si mbopp tournoi fan ak fan la boole bëri tournoi. waaw bëri naa tournoi Kaolack Kanda bëri naa tamit Fouta tamit bëri naa. Kanda waaw maa ko jël. waaw maa ko jël waaw Fouta bi tamit maa ko jël tamit waaw man Mbapat benn yoon laa si mos a daan. man ba mu daan ba léegi daanatul. maanaam tey jii si Mbapat kan la fi booloo njëkk a daan tey jii koo xam ne làmb xam na ko wala ku fi daan booloo xam ne tey jii mu ngi toj ci arène bi. Malick Niang. Malick Niang ban. Malick Niang ko Kaolack la nekk ko gars yi xam nañu ko fa bu baax kay. amaana xam naa ñëwagul ci arène bi. fi Dakar Dakar fii nii fii fii non fii bëri mu bëri fii est-ce naa fi mbapat nii bu bu boo bëri ba ama non bëri waatuma fi de. bëri daal yow nekkul Dakar. nekkul Dakar presque Kaolack laa bëre ak Fouta ak côté kii bi Diofior bi noonu. waaw tournoi séeréer si. yooyu mos nga fa tamit. waaw soq bu Pikine. tournoi soq loo fa jëlee. tournoi soq kii laa deuxième tour laa toogee. la génne. non waajur man xaw ma man dañ maa woore ma ñëw sëgg bëre. bi ban dëkk ak ban dëkk nga nga demoon Fatick bi. kon Fatick bi kii laa àndaloon sama benn grand bi ñu naan moom fa yóbbu woon man xaw ma fa dara moom fa yóbbu waaye bëri naa fa trois combats yoo xam ne damaa maa daan. ci lesee nga nekkoon si raw gàddu waaw fekk maa ngi gën tuuti nii nag. Mhm. foofu nga ñàkk si quatrième combat. quatrième combat bi laa ñàkk Saloum 2 sax moom a daanoon boobu. Saloum 2 boobu foofu lañu daje Saloum 2 boobu xaw ma ko mi hmm. hmm. ngi noonu nga dégg boo loolu fi mu na ñëw si lutte avec fan la ak kan moo ko tëggoon. son premier combat la. yàkkan la woon. bu yëmbal. waaw danger bu yëmbal a bëreel. diggante bi jegewul. danger laa njëkk a bëreel ba ma bëreel danger yaa combat bu kii grand combat bi. kii moo ko doon bëre yaakaar naa su ma juumul la maam a ak kii nekk Thiès bi. kii am na xaw ma kii daal moo ko doon bëri daal maam Ball daal jàpp naa tur bi moo ko doon. un wala deux. maam bu nekk Thiès. te mu bëri am bëri fan yii la paase moo doon bëree grand combat moo am naa Thiès. am naa Thiès waaw. am naa Thiès non non a bëri nga daan bi nga ñibbisee. waaw bu ma ñibbisee comme yeneen combat yi rek comme genre man dama ko jàppee woon comme rek waaw bii nii rek passé nii dem si booloo nga dal si kan ma jóge ci moom ma ñëw ci njàpp njàpp ban njàpp parcelle waaw boobu kan moo ko tegoon boobu si muru la waaw sama ménageur paare la woon dañ ko moom dañ ko joxoon combat bi parce que ndóoy moo ko joxoon waaw mu bëri ko si jour moo ko doon bëri sax jour ba taw waaw sama tawoon waaw ma daan ko deuxième combat deux victoires nga ñëw sa troisième combat ne yaakaar. Permignon. Permignon benn benn. waaw Permignon waaw bu écrit Bada waaw <laughs> moom la de. bi nga jël ko. bi avant arbitre ñëpp ne booy la war woon jël xale bi war jël kii. waaw noonu la demee mais sax xam nga rek lamb lamb moom xale moo koy def lamb moom xale moo koy def parce que ñaan naa yàlla tey jii nii bëri ñu dul ñooñu waaw waaye sant yàlla so diggante ak Permignon mun naa wax combat bu ma gën neex la parce que bëri nañ xeex nañ waaw. yàlla nag dogalam jaam ak pexem nag combat bi fu mu jeexee gis nga maa mujjee gagné ñu jox ma victoire bi combat bi jeexee na ci blessure waaw di ko encouragé moom tamit na gën a yokk entraînement yi ndaanaan la daal. nga marqué trois combats trois victoires nga ñëw nag sa dernière sortie bu mujj. ma bëree ko Pape Sarr Pape Sarr laa ko bëree. arène nationale bi fii nii. gaa yi ñu bëri naan waroo ko woon jël. waaw bi ma nekk sama premier sortie arène nationale yeneen combat yëpp fee laa ko bëree Imar. ma ñëw gars yi naan waru ko jël ak yooyu noonu gars yi wax ji bëri trop sax. même ñenn ñi sax say supporters nee nañ boole waru ko woon jël ndax kii da kaa xaw a sa Pape Sarr da kaa doole. waaw loolu la ñu wax mais ñoom ñooy gis loolu ñoom ñoo gis loolu mais man kuy kontaan ñoom Ndiaye Diène ñi ñoom Pouy yi nii waroo ragal ñooñu wax wax dëgg neex yàlla te man waa ji bu ma ko ëpp doole ëpp ma doole su ma gën nekk xale gi nu ma nekk xale moo mag tamit man 97 laa judd. si si fi la yéen ñaar. arbitre siffle rek ma dox ci kawam rek jël naa jël naa mu wax dëgg neex yàlla jël naa tamit kii tam na ma ko dal gis nga ko mu remise la waaw mais man lu ma dóor yëpp ba yitteel mu nekk li ma gaa yeewal mu nekk naa ko jàpp rek la moom yi mu dóor yëpp daa soxla woon su ma ko doon su rek laa mujj jeex parce que maa ko dàq bëri maa ko doole gën ko féete xale mais amaana moom masse gars yi dañuy jaawale masse force moom am na masse mais xam na bu nekkee buñ jàppante moom ba ma ko jàppee moom xam na lu nekk ci moom parce que moom boo xoolee dafa benn song mais xam na lu jàpp nit moo jàpp tànkam moo xam na ko parce que ba ma ñëw caax ba ma jëlee tànk bi dafa dafa bëggoon déclenché mbot mais dama ko bàyyi ba mu correct sama loxo ma dama dama teg dama sama tànk sama loxo bi fu ma jàppoon dama ko dindi gàll sama loxo bi jàpp ci ginnaaw ngeem ba ba léegi bàyyi ma sama benn loxo bi bàyyi ma tànk mm, waaw jàpp ko fa daal di ko daal ci dëj mu tëj. nga marqué quatrième victoire. waaw mais sant yàlla rek comme li may wax rek ay xale lañ wax dëgg neex yàlla ay xale lañ ñu ngi ci yoon bi waaw. loolu nag Boy Lo jëm fan. a Boy Lo moom fu mu jëm moom sama grand yi xam ne ko ñoom jaase ngi ñoom sekk. ñoom dugg ñu si géew yaa dugg si géew xam nga say adversaire Boy Lo am na tey ñoo xam ne bu ñu la seet see taj pare nga pour bu rek ñoom. waaw dëgg la amul benn problème man déggoo man man bu a waaw dëgg la même bu nekkee ñu ngi ci contrat même ñoom ñaar kon boo ku daan ñu jox ma ko. morom ñu ngi fi. waaw ku ñëw baax na. mais sa sa morom moo bëri spécial. waaw bu ma la ci. Mama Lamine bëri spécial. waaw Mama Lamine moom maa koy encouragé maa koy dugg maa ko waaw sama nit la sama xarit la moo wax dëgg neex yàlla. duñ laale duñ laale waaw. loolu ci code suy ñoo ko njëkk bañ sax. Hmm. am na ñoo xam ne nag tey jii nag booloo nag war a làmb war na mën a boole ak ñoom tey jii nga ne ñii samay naataangoo lañ nañ ñëw ñu bëri waaw samay naataangoo limal naa leen lim naa leen ñaar ñee ñu ngi ci contrat ñaar ñee ñu ngi ci contrat am na ñoo xam ne nekk ci contrat sax xam nga leen waaw dama ne la Ada Fass na ñëw ñu bëre xam nga bu dee Liss Ndiago dañ naan ma kaa ëpp doole yaa ëpp Liss doole billaa wallaa wa taala maa ko ëpp doole boolo est-ce que nekkul dañ laa fekk fii nga toog sa xel dal nga ne yow yaa ëpp Liss doole boolo boo fekk loolu non non man ñi ma yor xam nañ ma moom ki ko yor xam na ma da nga ëpp Liss Ndiago doole ki ko yor xam na ma ki yor Liss Ndiago eh. xam na ma bu baax daje nañ CNG am na li mu wax nag moom tamit waaw mais sant yàlla tamit bu dul bu dul liis waaw bu dul liis comme li ma la wax rek Ada Fass a ngi fi Tapha Mbeur ñoom ñaar ku daan ñu jox ma ko. ñaar ku daan ñu la. waaw bëgg na waxal ak ñoom. Ada Fass liis njaago ñoo la ñu bëree ngeen bàyyi ñëpp ay xaañu maan ngeen. man Boylo maa ko wax. kan kan mooy tàppet ñëpp yéen ñetti ñëpp ay tàppeen ngeen maa ko wax man Boylo bu nekkee li ngeen di wax kay dëgg la ci yéen ku daan maa ngi ni soxla naa la. Eh, Boylo Boylo nag fi ñu toll damaa yaakaar ne dafa am lu ñu la dee avant ñu ñëw ba tax nga taxaw rek si te ñett ñooñu. kenn ku kuy takk ngemb doo ragal fii xam nga ñoo ñoo ne xam nga yow mii ragal nga yow benn yow ragal <laughs> comme que yow yaay taxaw ci ginnaaw kii yaa ngi dégg te sa micro bii di wax naan gars yi ñooy dóoranteeg yooyu noonu. Ah. waaw yow ci tapé léegi man man tapé la jaas mi si tapé la bokk <laughs> sama <laughs> bu mag <laughs> jàmbaar yi daal moo nekk ñi nga xam ne ñoo nekk ci digg bi di laale waaw jóge sa ñuy wax mbër moo gis am na ko jàppale si combat te jàppale waaw di sant yàlla tam bu baax am na koo xam ne moom du ma ko sant mais xam naa su ma waxee rek moom su ma su ma junjee wax dina xam waaw maa ngi koy sant bu baax a baax lu ci mel ni Abdourahmane tamit léegi moom tamit jàpp na ci combat bi sama booy koñ yi waaw ñoom ñëpp gars yi moom wax dëgg neex yàlla ba combat bi taxee ñu bëri jàpp nañ ci combat bi lu ci mel ni waaw ñoom kii ni mu tudd Baye Mousse yi nekk ci koñ bi ñoom ñëpp mobilisé wu nañ génn wax dëgg neex yàlla jàppale seen doom ba keroon li yàlla di may ndam. mel ni combat bi taalibe dañu am bu ñu jàpp waaw taalibe yi moom waaw taalibe moom <laughs> waaye taalibe yi ñoom ñi. dafa mel ni yow yow dafa mel da ngay jël combat rek dem wax ak taalibe yi taalibe yi am fuñ fuñ dugal say adversaire. non ñoom ñoom ñoom ñu ngi ci ñeent fukki yaasin ak benn. ñeent fukk ñeent fukki yaasin ak benn. nga ne taalibe yi lu ñu dóor. waaw li ma la wax rek ñeent fukki yaasin ak benn. loolu wax ñu wàññi ko loolu wax ñu wàññi ko wàññi ko nee nee leen nee leen bëreegoo spécial bëreegoo grand combat ay combat préliminaire ngay bëri nee leen ñu wàññi ko ay ñaan la rek ay ñaan lay muslu waa xam nga nit moom boo wax dëgg neex yàlla boo duggee ci stade beg yooyu noonu summeeku bi loolu am musluwaay rek la. ñoo xam ne nag tey jii sa digganteeg Petit Baboy coow li lan la. mais sama digganteeg Petit Baboy wax dëgg neex yàlla man moom teguma bët Petit Baboy. duggoon na fi. ah waaw duggoon na fi duggoon na fi mais teguma ko bët. duggoon na fi këpp seen ci defet lan nekk wax dëgg neex. duggoon na fi këpp seen reer waxal la. dëgg la duggoon na fi këpp seen suñu reer wax coow jubul bu ñu làmb boole ñu bëre hmm. waaw. kon bu ñu session ni pare nga pour bëri ko jar mu bëri. yii mi ma xam petit baabooy bu dugg seeg fugu baabooy bi. bëgg sam bopp bi. yaasa bi du ji soble laa la wax. pardon billaay petit baabooy yaasa bi du ci soble. petit baabooy yaasa bi doo ci soble. <laughs> sama gars yi nag ngeen dégg kookoy Boylo nekk ici ressortissant de Fatick nga dégg li mu wax nee na nag petit baabooy yaasa bi doo ci soble. cité na ku si man ni Tafa Mbër cité na ku si mel ni Ada Fass cité na ku si mel ni liis njaago ñooñu nekk sa ñooñu tamit ay moromam ñu ngi fi sa ñoo xam ne war na mën a laaleeg ñoom ñu ngi ci làmb ji bari nañ fi torop torop sa digganteeg caatu caatu pikin caatu pikin bi Mama Lamine mujjee daan ko du làmb spécial la bëri de waaw du làmb xam nga loolu moo tax man la làmb ji dafa bëri daw laa mais imagine na booloo bu bëri trois combats di bëri quatrième combat am kii nga xam ne deuxième combat am ñu jox ko spécial. ñoom ñaar ñëpp ku ne kii troisième combat am la bëri spécial kii deuxième combat la bëri spécial. waaw loolu nag laa la ñoom ñaar ñëpp kenn ku boobu mooy sa deuxième combat ñu bëri ñu ñu jox leen special te booloo nekk bi ëpp ñu ma doole dàq ñu ma bëri gën ma nekk xale. nekkul ñàkk est-ce que nekkul encadrement bu baax. non non pas encadrement bu baax mais làmb dañ ko war a teg ci yoon dañ ko war a teg ci yoon. mais xam nga lu boo gisee ñu naan làmb dafa suul làmb dafa suul làmb suulul de mais yi mel ni moo ko yàq da ngay gis koo xam ne waratu bëre grand combat ñu jox ko su ma déggee sa wax promoteurs yi ñoo koy def wala ménagères yi ñoo koy def wala ñenn ñoo koy def. waaw ñoom daal la ñoom ñoom rek la daal xam nga promoteur bi la xam nga la daal mais daal ñoom la rek. ma déggee sa kon lii rey làmb mu si biir làmb. <laughs> yàgg na loolu kay yaa ngi chaque jour yaa ngi ci làmb yow. yoo xam nga lu ci làmb yaa ma gën a xam lu ci làmb man takk ngemb dem rek laa xam mais yow yi ngay gës ci ginnaaw man xaw ma ci dara mais am na yoo nga xam yenn yoo xam ne ñu ngi koy gisal suñu bopp noonu la demee. bi nga seetee sa diggante caatu yëmbal. caatu yëmbal déggoo li ma la man dama amee sama dama amee coach may encadrement ak sama staff bu ci waxtaanee ba jubal rek coow jubul amul benn mbër buy takk ngemb. ñu poche. loolu nit leen si waxtu ñu si émission bi. looy tàggatoo looy wax say coach looy wax say am di jaam. waaw di santaat yàlla rek bu baax a baax samay coach yi moom wax dëgg neex yàlla am leen lu ma leen di wax moom bu leen gën a jaajëfal rek nañ jàpp bañ a bàyyi waaw yi ma nekk ci bi gis nañu ni lañ fi nekkee wax dëgg neex yàlla bokk ndey bokk bàyyi ñun amuñu lenn lu ñuy xiiro suñu biir di ŋaayoo wax dëgg neex yàlla gis nga tey vendredi bi da ñu fekk semaine bi yëpp lañ ko entraîné vendredi bi mu ngi nii gars toog nii. waaw di football nekk ni seen biir di football si. remercier bu baax a baax di la wax euh, bon continuation ndax euh, woo nit mu nangul la rek dafa jafe soo neexoon nga gis succès wala dara dañ laa woo rek kon ñu ngi lay remercier bu baax baax SBT ngi lay bu baax a baax di la wax waaw waaw loo wax Fallou Ndiaye la dis. Fallou Ndiaye. doo wàcc. waaw bisimilah. jaase ngi non cooju jaase ngi simple bu pare mën naa joxe mu dem renouveler ji licence bi. waaw lamb ji anam na ko dàq. tournoi comme Ama Balde. Tafatine. kii nu mu tuddee guy gi waaw dama ne comme seen tournoi boobu noonu amoon fii. yaa bu tentee bi. man Boylo. Tafa Mbër. Ada Fass. ak kii nu mu tudd sax Boy Lis ak caatu ngéwél cinq ngeen di bu leen neex nañu ko quatre personnes ci saa waay génn ci xam naa bu bu génnee premier tour dañu naan nañu ko ëpp doole. kan liis. kon léegi da nga ciy rocc liis dugal ci ko dàq. xam nga ay booyloo wax du samay wax <laughs> waaw mu ngi noonu kookoy booyloo nekk ci réservation de Fatick ñu ñëw fi fekk fi xale ñuy fubal fekk fi ku si mel ni Garga Ndiaye Diène xale Pouy de ndaanaan yooyu ñu fekk leen fekk fi seen coach di wax nag gars yi le 10 Fallou Ndiaye la le 10 Fallou Ndiaye moo woote tegaat mise bu doy waar si lu mu jugee si 4 millions la jugee ñëwaat war a dabaliwaat tegaat mise 5 millions Fallou Ndiaye nee mu ngi ciy woo kulli kuy poids lourd kulli kuy mbëru li rek wala ku wóolu sa bopp rek Fallou Ndiaye mu ngi la siy woo waaw muy la 10 hee cey la 10 Fallou nee da si sargal séeréer si séeréer si nag booy sargal boo sargalee kenn sargal nga ñëpp kon daal Fallou Ndiaye Ndiaye production le 10 la woote sama gars yi ko kon rendez-vous bu le 10 la. fan la arène nationale at kan at Fallou Ndiaye di dije beneen émission at beneen champion fii si SBT Média kese rek dong lay doon gannaaw bu nuyu naa la feneen la jàmm ji sant yàlla bu alhamdulilah ñëw fii fekk équipe régionale de Fatick fekk xale yi fii ñuy petit camp di fo tey ji préparation xale yi waaw ñaaw bi ñu sant yàlla julli si ñu sant suñu ñaari waajur di la gërëm aussi tam yow di la wax yow moom mooy loolu mun laa fi indi waaw xam nga ceeb daf maa lakkal <laughs> waaw di la ziar bu baax a baax waaw comme ni nga ko fekkee rek ñii moom lañ nekkee bu ñu entraîné ba vendredi xam nga ñu délassé au football Kaffrine ñu daal lañ demee. nombre xale yi toll si nombre bi ñaata. waaw presque ñu ngi si 33 parce que dañoo wàññi parce que boo yoree yenn somme élèves yi pour jàngal leen li nga xam ne mooy làmb day métti parce que nga yoru lu toll nag ay 60 personnes wala ay 100 personnes. te quatre personnes cinq personnes ñoo si bëre mieux vaut que nga wàññi ko def ko trente cinq saison bi bu ci trente yi bëriwul sax vingt cinq yi mun see bëre moo tax ren daal ñu maag sekk ñu waxtaan ñu ne nañ wàññi nombre de personnes yi def ko trente cinq. ngay gis ngeen ubbee victoire boo la ubbi xale yi est-ce am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi préparé combat fi ñu waaw ku si mel ni su lay garga mu ngi ci contrat Ndiaye Diène mu ngi si ñaar avance. bëri na boo yoo xam ne ñu ngi ci ay avancé c' est que ñoo ne jarul ñuy fesal seeni i làmb rek parce que xam ku yor doo sëqat booy fi yor avance mot nañ cinq ans. ñu doon gis ñu gisoon fi benn ku si mel ni Père Mbaye Tine sax gisatuñ ko si équipe bi anamu. waaw mu ngi fi mu fi mu ngi si jàmm baax parce que dimanche daa mel gis nga ko stade mu fi. gis xale yi bu ñuy ñëw mu daan topp seen ginnaaw ñu dégg na fan yi gisatuñ ko si ginnaaw xale yi lan la lan mooy problème bi yéen moom. waaw jàmm rek xëy na ay nit bu ñu nekkee tamit ba am koo xam sentiratul boppam wala ñoo xam ne sentiratuñ la am nga droit dem feneen wala am nañ droit aussi tamit téye seen bopp xool keneen ku leen mun a remplacer xëy na xale yi santul nii cinq ñu ram cinq lañ sentir ak jazz loolu la rek. ana grand puy deux. mu ngi fi kooku moom wax dëgg yàlla mu ngi fi mu ngi fi baax a baax ñoo def lu mu yëgul. Père Mbaye Tine moom moo dem si xale yi ñoo ko bàyyi mu dem wala moom moo demal boppam. waa mën naa ne daal xale yi ñoo sentiratul pour sa bëccëg xale koy for. kàddu gu mujj. sant yàlla sant aussi coach ki mooy coach man <laughs> mooy loolu Seck mooy coach moom mooy préparé booy man moom wax dëgg damay démarrer say combat rek mais Seck moo leen yor lépp xam nga nii bu jógee fii këram la jëm ñoom ñëpp mu jox leen reer te loolu yombul ci koo xamante ne day taxale rek mais billaahi wallaahi heure bu jógee fii këram la dem. ñu toog waxtaan naan mu jox leen teraanga ñu doog a moom bu ma nga jël ko ñaari baar rek mu wax ci moom. kon Seck Ndaanaan. waaw man la. Seck Ndaanaan bu desee sa dafa. waaw dafa leer loolu moo am. ñëw fekk la xale yi nga nekk xale comme ñoom. seen biir di foog ñu en kot mu lu jafe. waa dëgg la asalaamaaleykum maa ngi bëggee leen ci geste bi ngeen def bu rafet daal bu naas di ci kontaan di leen ñaanal yokkute waaw ba nga yëg daal. fi dégg ay TFM seen TV 2STV ñu leen fiy dégg ci barke Seydina Mohamed waaw xale yi moom. xale yi moom ñu ngi xale yi moom bokk ndey bokk baay rek parce que ñëpp ñoo far ba vrai que ñu ne jazz ñoo fi nekk di liggéeyandoo di yëkkandoo di wàccandoo tamit noonu la xale yi tamit neexal nekkal trop koo ci wax defal mu def ko wax bàyyil mu bàyyi noonu la nañuy liggéeyee quoi yàlla. dañoo muy départ mbayte ni ñu doon dégg ëpp li ñuy dégg. dem ba si biir déggatuñ ko. waaw dëgg la comme ni la ko Diaz waxee rek nit moom foo ti nekk dafa bay sa waar boo demee ba ñi nga nekkal centré tuñ seen si bopp tamit la moom nit mënu si dara quoi booy noo dem ba centré tu ko centré tuñ ko loolu moom kenn mënu si dara du ci man du ci Diaz du ci keneen ak dëgg yàlla. looy ñu ñu jàpp ci rek fii moom ay ndaw nan bëgg nañ bëre te xale yi wax dëgg yàlla ñëpp ci forme ñun moom suñu saison tojul woon chaque jour ñu ngi liggéey di entraîner xaaruñ benn promoteur ku ñëw bu baax na waaw dëgg yàlla ñu ngi sax suñu saison moom tëjul woon chaque jour ñu ngi entraîné boo xoolee xale yi sax xam ne ñoom ñu ngi si état wax dëgg yàlla waaw. kon su ko déggee su lay gërëm nekk si avance. waaw lay bëre ci boobu lay bëre quoi. ñu ngi bu baax a baax. waaw di la sant di la jaajëfal bu baax baax ku baax. ñoo pare ok jaajëf. c'est